sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilah alhamdulilah xaqil mubiin man kawnuhu li yabiin ala kitaabil mustabiin maha jamihi nihami alhamdulilahi wa salla abada ala lazi bihi lana huda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawil nawalil wali mbokk yi ñu ànd sant sunu borom subhaanahu wa taala ñu julli ci sangam ba Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ñaan suñu borom sunu sëriñ suñu yaakaar sëriñ Tuba alhaji Cheikh Sidil Muxtaar yàgg fi loolu te wér waaye ñaan itam suñu borom subhaanahu wa taala sëriñ Cheikh Fall jëm maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina yàgg fi loolu te wér ak sëriñ Tuba Xaadim Rasul yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw mbokk yi nu am mbégte mu yaatu yaatu dellusiwaat kii seen studio ma fàtte waxul Bichri àndandoog bu ngeen yàgg min seen émission dawaamu sukkuri delloo njëgal Seexul Xadiim mbokk yi tey am mbégte mu yaatu mu rëy li ko waral mooy euh, dañuy am saa su ne yëg-yëg di feggoog ñi nga xamante ne ni yoon wi da na jaral lu ne donte sëriñ bi wax na ne waq di xaw a idina dina daamoo fi xidmati wa xablahum maaraamu ki nu feggool tey booy seet ci ëtt bi boo duggee buntu kër sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul fëggal buntu kër sëriñ mu fàllu boo fëggee buntu kër Cheikh Amadou Fadal fëggal buntu kër Cheikh Abdoul Karim ibnu Cheikh Amadou Fadal ku ñëpp xam borom makarimul axlaq kuy liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul son excellence son ambassadeur son fidèle serviteur mbokk yi dama ko jox mu nuyoo jëruñ Lamp Fall aw turam la bu ko defee dugg ci waxtaan yi li ñu bëgg waxtaane bari na ñu fas yéene waxtaane lan dongo tarbiya bu gaa yi miinul ci concept Baye Fall xam naa rek ma jox ko mu su ko defee dugg ci waxtaan kon jëriñ ñu ngi lay wax mbokk jullit yëpp di ziare mbokk taalibe yëpp di ziare baax a baax a baax sëñ Moussa Ndiaye mi yor émission Dawaamu Chikri ak képp ku mbokkal liggéey bi fii ci Mafatihul Bichri di ñaan sunu borom. yóbbu leen ci maxamaat yi ñu gën a bëgg yu kawe defal leen ko ci yoon wi ñëpp fekkee ko noo siyaare bu baax di ko delluwaat kaddu bi di ko déglu nag fas yéene waxtaan ak moom ci li mu bëgg tey lépp li ñu waxtaan ci ak moom fas yéene ko cee tontu di ci am mbégte lool nag di ci siyaare nag mbooloom jullit yi di ci siyaare bu baax jëmm ji nga xamante ni dañ ko ñàkk tey muy sëñ Cheikh Tidiane si Al ni ko Al Amin waxee rek di néew ñëpp nekkul néewu famille waaye umma islamique bi yëpp ñoo ko ñàkk ñu ñaan sunu borom yóbbu ko ca maqamar yi gën a kawe yokk ay leeram te taasuñu ci barkeem di ko jaale nag képp koy jullit rek mm-hmm. di ko jaale sëñ Sidi Mokhtar Mbacké ko jaale di ko jaale bépp xalifa ak bépp taalibe tabarkaal di ko jaale bépp taalibe ni ko suñu jëriñ waxee di ko jaale itam xulafaa u yëpp di ko jaale itam umma islamique bi waaye rawatina kii mu bokkal maam Maara Mbàkke muy alhaji Cheikh Sidil xam ngeen ne euh, benn bo benn bopp rek la benn jotaay rek la maam Maaraam rek a barkeel maam Maaraam euh, Cheikhul Xadim noonu lañ ko siyaaree itam euh, alamin mu doonoon jàmbaar yoo xamante ne nii jëwriñ ma fàttali ba si TV bi mu déggee yitte bi boobu ba léegi amatul jàmm amatul sago ñu ngi ciy def ay plateau spécial ñu ngi ciy def itam ay ay ay ay tournée fii ñu toll tembe njaboot gaa nga fay euh, ca euh, Tiwaawan bokk naqar bi ak tiis yi waaye fas yéene nag la fay xew gannaaw euh, am na ñoo xamante ne seeni jéego sori na ñu ngi ci bitim réew te buñ sañoon fekkee te fekkee ump na leen te daanu dajul fépp. ma faa taxoon Bichri TV nekkal leen fa mbokk yi kon xam na duñ fi guddal incha allah rabbi la ca war saa su ne dina leen ko wan waaye nag ñu doxoon sunu njaal ci dawamu sukri émission bi nga xamante ne ni mooy delloo njëkkal Cheikhul Khadim ak njabootam euh, incha allah rabbi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu xippee ci aljana yu gën a màgg ci aljana ya te ndax rafet nañ ci jotee itam ndax sunu si suñu sang suñu yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ne bu nit dundee li ma kun lépp lu mu ca teg suñu borom du ko ca bindal di bàkkaar kon suñu borom nag ku mu jéggal say bàkkaar dootu la bindal bàkkaar yaa nga texee yaa nga aljana te weesu na ayat yooyu mu ngi woon ci juróom-ñeent fukk ak ñaar kon yàlla na yàlla defal xewal suñu borom defal ko tawfeex mu dekkee si ci aljana yi xéewal yu mag yi tedd yooyee euh, jëwriñ xam naa ko ñu dugg ci suñu jotaay euh, ma siyaar rek sama sang suñu sëriñ ñu mën ko lool mu suñu xarit nu bëgg ko ba mënuñu koo gëmee ay euh, Cheikh Abdou Karim Mbacké ibnu Cheikh Amadou Fadal euh, jëriñ boo déggee Cheikh Abdou Karim tur wi benn nu muy def ci yow ñaar mission bi nga xamante ne nii euh, wax na ko yëkkati ko ba ñëpp dégg ko weesuwul fexee defaru bay defaree ci jikk yu rafet rafet rafet rafet ba sama borom defal ko ci tawfeex jéem ko ci defar wuyu ko ci kan ñi nga xamante ne ñoom la àndal muy doomu aadama yi ndax nit doomu aadama rek nga mën a àndal defar ko ba bu ëllëgee suñu borom bëgg ci yow mu mel ne kon Cheikh Abdul Karim umma bi yëpp bëgg nañ ci moom ci li mu woote muy mission bi muy makaarimul axlaaq su ma la waxee makaarimul axlaaq ak Cheikh waaw loolu moom Moussa ciy tontu mooy Cheikh Abdul Karim Mbacke ibnu Fal Sëñ Falilu ni nga ñu koy dàkkantelee borom makaarimul benn li ma ciy njëkk wax mooy borom makaarimul axlaaq biñ ko koy wax Cheikh Saliou Mbacke mi ngi fi sëñ Modou Moustapha Falilou Mbacke mi ngi fi sëñ Mourtala Mbacke mi ngi fi ma yaakaar ne yoon bi képp ko ñu fi ku fi wootee loo xamante ni nekkul da gis du yàgg waaye sëñ du Karim bi ñu ko tàmbalee wooye borom makaarimu axlaaq ndëgg nii mu ngi bëgg a yàgg li ko waral nag mooy ay jikko ndax makaarimu axlaaq mooy jikko yu tedd nga xamante ni moom lañ taggee woon Seydina Muhammad sallallahu nañ it ci biir xes sëñ Touba fu mel ni sëñ Touba di ko sàkku ci sunu borom naan wa maa taxabbu bilaa cheikh kon ñàkkul ne doon na benn mission boo xamante ni ci biir mission wu sëñ Touba doxal makaarimu axlaax lu ci amoon sol la ndax ku ne xam na ni ab jullit li ñu bëgg ci moom mooy mu làmboo ràngoo ay jikkooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te makaarimu axlaax mënut a ñàkk man damay faral di wax ne ndab la loo xamante ni ñëpp a ko soxla ndax tey kilifa gi yor ay doomam ci biir këram su sañoon ay ay doomam toppante yor ay jukkoy makaarima wax laa ndax mooy doon nafraayam kilifa gu am ay soxna su sañoon ay soxnaam juboo doon benn toppante yor ay jikkoy makaarimu axlaax ndax mooy doon topp noflaayam am réew ki ko yilif mhm. di président de la république hmm. su sañoon tey réew mi mu yilif hmm. ñu yor ay jikkoy makaarimu axlaax hmm. ndax dëkk réew mi naat mu ñépp am jàmm kon makaarimu axlaax ndab la loo xamante ni ñépp a ko soxla te fépp la baax ndax jàmm rek lay jur ak noflaay ak tawféex sëñ Abdou Karim nag dafa mel ni le 9 octobre 1993 la ko wootee. te boo méngalee date bi mu koy wootee. date boobu moo dëppoo. ak bi nga xamante ne ci la Sénégalais yi. commencé ñu baal ma ci baatu tubaab yi. maanaam di adopté ay comportement yoo xamante ni. yu incompatible. Mm-hmm. avec nos réalités la. Mm-hmm. ndax li waral loolu mu nekk incompatible avec nos réalités mm-hmm. sénégalais kenn xamu ko woon mm-hmm. ay tour deret ay rey sénégalais kenn xamee ko woon ay taal mm-hmm. mais bi ñu demee nag ba nga xamante ne léegi nag loolu commencé nañ léegi di ko adopté jëlee ko ci yeneen réew yi ngir xëy na médias yi ñuy seetaan ak yooyu tax na ñu tàmbalee léegi di taal ak di rey boo xoolee méngale ko ci la sëñ Abdou Karim Mbacke woote Makaarimul Axlaaq ñëw ne ñëw leen ñu ànd defar jikko yi tarixa bu waaye mën a bokk doonal nit rek ngeen ñëw ñu ànd ñu defar jikko yi ndax bu ñu defaroon réew mi tey ba mu mel ni panaal te jikko yi rafet dinañ ko taalaat yàq ko mu ne ndaw ñi nanu nanuy déglu bu baax ndax am na ay mag yoo xamante ni danoo dund seen dund ba mu jeex waaye fas yéene ñu bàyyee ab ndaw ndono lu baax ndax gone booy dugal ci boppam da ngay dugal ci boppam lu tolloog boppam lu boppam attan mu ne kon xale yi képp kuy waxe yéen te li muy wax seggu ko yéen na ngeen am fulaay segg wax ji ba mu tollook seen bopp ngeen dugal ko ci biir ndax bu ngeen ko defulee dingeen ngeen taal seen bopp ba jeex tàkk yàq seen àddina ci noonu la sëñ bi tàmbalee woo nit ñi dinu jàngal ay xeeti jikko yoo xamante ni daanaka jikko yooyu ñun xamuñu ko woon te ba ca jiitu mooy li may wax ñu bari jaar nañ ci nga doon ndaw ñaar ñi la indi woon ci kaw suuf. Mm-hmm. yàlla jaarale la fa. Mm-hmm. muy sa ndey ak sa baay. Mm-hmm. doo xam seen valeur. bu ñu waxee nga sànni leen loxo. nga indi dëgër bopp sa diggante yow ak ñoom. ñu ci bari bi ñu àndee ak sëriñ bi lañu commencé xam valeuru ndey ak baay ndax bi ñu ñëwee ci moom danoo gis ni nga xamante ni moom la jàppee ay magam di leen sukkal ak di leen raamal. ak ni muy wormaale nit ñi ndax man mii sëñ Abdou Karim bés gindi na ma rek ci benn jotaay bu gaaw boobu dama am jëmm juma koy wanaleel sama mag la ñoo bokk ndey ak baay keroog bi ma toogee di ko wanaleeg sëñ bi dégg naa sëñ bi daal di jékki-jékki ne ma yàlla bind na ay nit yoo xamante ni li mu denc ci ñoom du feeñ ci seen xar kanam du feeñ ci seen melo du feeñ ci seen doxin du feeñ ci seen waxin mu ne ku mel noonu nag li yàlla denc ci moom soo ko bëggee génnee nee na caabi ji koy ubbi mooy makaarimul axlaax loolu ma mos ko sama diggante man ak sama kilifa googu yàlla dogal na jiitu na yàlla na ko yàlla yërëm waaye laata muy dem diggante bu gàtt boobu ma déggee xisa bi rek mm-hmm. ak li ma si jot a dund ak moom rek mën na maa may lu bare bare bare ci moom na nag lu ndaw ndawaan yi ma doon jéem eh, eh, góorgóorlu ci ci lu jiitu may dégg loolu. kon sëñ Abdou Karim nekk na koo xamante ni li gën a mën a li gën a ñaaw tey xew ci biir kër yi. sëñ moo ko jàngale mooy lan toppante. Mm-hmm. ndax tey bu ma jëlee exemple ci sëñ Mourou Moussa Mbacké bi mu fi nekkee. yilif ku yaakaar Serigne Touba. sëñ Fallou Mbakke mii ñuy wax borom kun fa yokku mm-hmm. li doole ji bari bari sëñ Fallou da ko téye woon. Mm-hmm. boo waxee rek mu ne Modou Moussa sama mag ju baax ji. mi mu sol jant bu jógee ci moom ci man la jëm kon ko gàkkal. Mm-hmm. loo wax rek mu ne sëñ Modou Moussa sama mag ju baax sëñ Fallou it bi sëñ Modou Moussa randoo mu toog fii. sëñ Abdoulaye gis nga ñu bari sóoraale wuñ ko woon sax. bi mu agsee it gis nga ni mu def yoon bi ni mu téye yoon bi loo wax rek mu orienté ñu ci magam yu baax yi mm-hmm. ba bi muy toog ci xilaafa gi sëñ Saaliw bi mu ñëwee gis nga koo wax mu ne yàlla na fi yàgg te mm-hmm. ngir maanaam toogoom boobu kenn soxla nga xam ni kon yoonu murit niñ ko tëggee sax mooy mm-hmm. benn toogukaay moo ci am kilifa gi moo ci toog bu ci xasee ba toog ñu si des soxlootuñ ko koo gis day ñaan mu yàgg fi. Mm. nga xam ne dundin woowu tey ñun ñëpp buñ delluwaatoon dugg suñu biir kër ndey ak suñu kër baay dem topp suñu xalifa baay bi mu fi baax. Mm-hmm. muy suñu mag lu ko yàlla mën a bindee ndax man damay faral di wax ne. Mm. askan kenn wutalu ko sa bopp. Mm. yàllaa ko tànnal ñëpp. ndey kenn wutalu ko sa bopp. ay waajur yàllaa taaw it deful boppam taaw. caat it deful boppam caat. yàlla moo moo ko rangale. te sëñ Karim dafay faral di wax ne ku xajamal ayu jàmbur bés boo ayee ñu xajamal sa ay daal ne bu kenn xajamal ayu jàmbur te ajamal xay euh, xajamal ayu jàmbur mooy sa kilifa neefi nga di ko ruubee mm-hmm. di jël say décision bopp mm-hmm. di noonu ak moom mm-hmm. di tong moom di ko wan ne ko man nii laa toll di ko wan ne ko lii laa am loolu du doxinu ab jullit na nag ab murit kon tey loolu lu ñu doon jàngal nga xam ne kon kenn ku si nekk danga war a delluwaat sa kër ga xool sa taawu baay ba nu mu mën a mel muy góor muy jigéen ak nu ko yàlla mën a bindee nga xam ne nii yàlla moo ko ni bindee nga nga góorgóorlu yor makaarimu axlaax yor ay jikko topp ci ginnaawam fexe ba mu rus la rek nga xaar yow ba sa ay jot mm-hmm. kon yooyu yooyu xeeti jikkoy makaarim walla mm-hmm. soo ko gisee xam ne ak fi jamono tollook ak ni nit ñuy dundee mm-hmm. xam ne mënul ñàkk kon ñu doxal li ñuy wax makaarim wax la yàlla dogal nag sëñ Abdou Karim loolu moom mooy li nga xamante ni moom lañ teg ci loxoom sëñ tubaab moo ko namm ak sëriñ Fallu ñu teg ko ci loxoom kon jikko yooyu wax naa ko ne ko li gaa ñi gën a ragal nga gën a ñeme loolu mooy génn toog ci mbedd mi mm-hmm. jàkkaarloog jaam yàlla yi ñii di la bind leetar bu koy jàng kenn du ko kenn du ko kenn du mën a jàng leetar bi mm-hmm. dana ko téye téyenu woo xamante ni mm-hmm. moom bu ko jàngee ba pare xotti ko xam li war ca kooka ñu seq ko ñoom ñaar ñii mu leen di dimbali ci ñaq ñii mu leen di dimbali si ñaan mm-hmm. su toogee benn bés bu mu tijjiwul sax da gis ne loolu day diis ci moom day diis ci moom lool ngir maanaam jaama jaama doomu aadama yi nga xamante ni danoo danoo ñëw di ko seet mm-hmm. te fii ab joxekat génn rek toog la ragal génn toog rek la ragal mën naa la xatu ci benn di joxe mm-hmm. waaye génn nag jàkkaarloog ñi lay laaj loolu moom yombul. kon yooyu yëpp ci ay rafet jikko la beneen bi ci des mooy sëñ Abdou Karim. Mm-hmm. boo xoolee ba ci biir da ngay wax ne ay ay ay wëllëreem ak ay soppeem ñoo ëpp sax ay taalibeem. kon li jur loolu mooy ay jikko moo rafet dafa mën a gérer nit dafa mën a téye nit. Mm-hmm. du daxee du gëdde du boddee mm-hmm. yooyu ñuy waxoon sëñ Fallou yëpp dafa ne ci moom kon kooku dafay neex a àndal. bi ñu dalee ànd ak moom it ba nëgëni it ñu gis ko moo ñu yee moo ñu moo ñu gindi moo ñu dimbali ci lu bari ci àddina mm-hmm. moo muri suñuy bët mm-hmm. moo ñu wan àddina ku ci nekk nan nga ci war a nekkee te doo sonn sax yenn sonn yi mm-hmm. kon moom su ma déggee turam rek ni nga ko waxee Abdou ab jaam al karim bu tedd bi moo xam ni kooku rek la nu mën a teg ci loxo makaay mox la mel na ni woy juróom wu jigéen bi nga xamante ni moo ko indi jamono muy ma am fay woy juróom wu góor moo ko jox tur muy sëñ falu koo xamante ne nag sa woy jur wu góor moo jox sa woy jur wu jigéen tur keroog bi mu gënee àddina ñu ne te bés bi sax dellu seegul te boobu ma ngay siyaare ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu demee fukki at ak ñeent mu jëlaat ko denc ko am ci soxna may grâce ak sëñ Abdou Karim bu sëñ Abdou Karim wootee jikko yi Seydina May woote woon loolu ku am xel tuuti di xalaat war nga caa jàngee dara <laughs> sëñ Abdou Karim nag géram la njool na ba noppi sëñ Fallou yi sëñ Touba mooy maamam kooku jarul wutal lu koy njoolal ba noppi su ko neexoon mu toog Touba ko génn génn réew mi dafa mel ni nee na 84 ba nëgën yi génnul réew mi te mu ngi fi toog makaarimu axlaaq bii ku ne xam ne ni géejawaay la ko wootee ci benn koñ bu ndaw ne maa ngi koy woote ci koñ bu ndaw waaye dana wër àddina dana daj àddina daña daj cinq continent yi yàlla bind dana liggéey leen képp ku ci góor góorgóorlu ci liggéey bi téeméeri at ca kanam histoire dina la nettali bi mu sosee liggéey beeg nag ni nag nit ñu bari ñu ngi ciy defaru di góorgóorlu. Mm-hmm. ñu bari ñu ngi ciy jàng. Mm-hmm. da lu mën a xëy sëw nag sotti nag ci ci diggante bu gàtt. Mm-hmm. foog liggéey la boo xamante ni à long terme la lu ñu gën a dem nit ñi di ko gën a seet di ko gën a jege di gën a am makaarimu axlaaq di gën a góorgóorlu bu ko defee nag yàgg-yàgg dana dana mos dana mos a baax. lislaam a ko gën a yàgg. te ñi fi jiitu woon yëpp mel na ni ci lañ doon dox. Mm-hmm. di ko xaalal borom Makarimal Akhlaq mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mm-hmm. kooku it bi mu ñëwee wax ne dan maa yónnee ngir ma mottali si jikko yi. Mm-hmm. boobu def na lim ci def taxul tamit ñëpp ak si ñëwagum. Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi dimbali ñëpp. mu ngi nii moom it yoon bi bi mu ko wootee nag nii taxul ñëpp ñëw doon yi murit waaye lu ñu gën a dem rek nit ñi di gën a ñëw. kon Makarimal Akhlaq bi. sëñ bi sax waxoon na ni bu leen ne na na bu leen di liggéey ne na sotti tey rek ma añee ko tey mm-hmm. nee na liggéey leen rek bu ngeen liggéeyee bu yàlla dogalee nga fekke ko xayrul bu yàlla dogalul nga fekke am nga doom wala sët wala jarbaat mu ci yoon bi di ñëw bu ñëwee jëriñu jëriñu ci makaarimu axlaa mm-hmm. wax ne nag makaarimu axlaa bii may mooy mooy mooy liggéey bu mujj bi des benn liggéey bi des ci lislaam makaarimu axlaa kese la mm-hmm. mooy nit ñi soppiwaat seen jikko defar seen yow xam nga ni ginnaaw bi ñu doonee ay jullit ba noppi mm-hmm. jullit mu ngi soxoree moroomu jullitam mm-hmm. di ko iñaane di seen teraanga buy ñëw ci moom muy wax ba yàq ko mm-hmm. gis nga it ne ginnaaw bi ñu doonee ay jullit ba noppi di nga dugg ci koñ seen fa kenn ku tawat tawatum xel te ki ko def loolu mu ngi ci biir koñ bi la dëkk ndéem du mbokkam sax di nga gis sëy boo xamante ne day xëy suba rek juri coow di di coow guddeeg coow bëccëg te kooku ka di boole mi ci biir koñ bi waa ci biir kër gi. ba sëy bi yàqu. dinga gis ku ñuy kuy bëgg bëgganteeg nit. nit jaar ci suuf wax caa wax caa wax ca wax ca ba yàqu ko dinga gis ku yor dara moroomam soxla ko mu nëbb ko ko bañ ko ko jox. dinga gis ku nekk ci jafe-jafe yu doy waar nit jege ko yor xéewal gu mu ko mën a dimbalee mm-hmm. mu préféré dem yàq ko ci lu amul benn ngërëmal yàlla mm-hmm. ba noppi toog di seetaan koo xamante ni ab jullit la buy sonn di xiif wala mu feebar wala mu leneen te loolu yëpp teewul kenn ne man jullit du ma jullit te sëñ Abdou Karim nag mos nañoo wax benn mos na wax benn wax nee na lu ngeen xam ci sàcc boo xamante ni mm-hmm. daa sàcc ay yëf yéena ko di dox ba mu yàgg mu dégg nodd ñëw ba ca buntu jàkk ja mu wàccee li mu sàccoon dugg jàpp ba seet julli génn yenn waat li mu sàccoon di dem mu ne lu ngeen xam si boobu sàcc <laughs> loolu mooy jullit boo xamante ni daa dëkkee julli guddeeg bëccëg te lu bon rek lay wax moom rek lay def te fu heure julli jotee mu jàpp ba set julli kon kooku sàcc la mm-hmm. bu sàcc yëf te bu julli jotee mu ñoo taxaw julli kooku julli deful ci moom dara te yooyu yëpp dafa nekk yoo xamante ni ay jikkoy makaarimu axlaaq lañ di jéggale di jëlale dimbalante di nëbbalante ay iib di wax lu rafet ci nit donte xam nga lu bon kon loolu nekk na loo xamante ni mënu woon ñàkk te ku ne xam ne Cheikh Ahmad Bamba moom lislaam la doon liggéeyal mm-hmm. lislaam boobu nga doon mu doon liggéeyal liggéeyal jullit yi ku ne xam na ni moom faw dana boole mu axlaaq ci biir yi mbiram mu doon lu ko soxal loolee nag suñu borom dogal na ni mu jaar ci suñu waa ji mu sëñ Abdou Karim Mbacké te lenn rek mën naa tamit jur loolu it ndax sëñ Fallou lañ déggoon mu ne jaay naa njureel jëndee ko taalibe ku jaay nag njureel jëndee ko taalibe jël njëg ja joxewaat ko addiyee daal ne du doom ju bëgg a doon baayam du ma bu bëgg seex maa ci biir Sëriñ Tuubaa kooku kiy doxal wax makaarim wax laa woon na mën a bàyyeekoo ci moom beneen ba ca desit mooy makaarim wax laa man jàpp naa ne képp ku koy doxal te boole woo ko ay jéegooy maam Cheikh Rahima Fall hmm. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yaakaaruma ne di nga réussir ci sa mission ndax dëgg dëgg makkaarimu axlaax mooy Cheikh Rafaal maam Cheikh Rafaal xam naa ni loolu moo waral sëñ Abdou Karim mm-hmm. yor ay dongob taka takk der mm-hmm. yor ay dongob laxasaay mm-hmm. ba mel ni sax ñi si bari ci biir liggéey bi ay ndongo takk der ñoo ko piloté ñoo koy doxal mu ci mel ni man mii li ma ci yor boo xoolee ba ci biir ci boppu liggéey bu ne rek ci diggante daara ak daayira Baye Fall takk dera ko jiite ñuy jéem a dox ci jikkoy Baye Fall ginnaaw bi ñu melooy melooy Baye Fall ñuy jéem a dund dund nu Baye Fall ndax dund nu Baye Fall dëgg mooy dund nu Mouride c'est-à-dire sëñ Karim waxtaan na ko ak waa Lamp Fall FM waa Jësbul Mouride xam ne wax ne léeg-léeg nga dégg ñu ne diw Mouride cest mm-hmm. dañ ko yombal lool waaye képp koo dégg ñu koy wooye murid saadix mm-hmm. te doxul doxinub Seex Ibra Faal mm-hmm. mu ne tur wa rekk a fa ne mm-hmm. waxul te melowul melow Seex Ibra Faal ndax jamono bii melow Seex Ibra Faal ñi ko yor bari nañ waaye est-ce que dundin wa ñu ngi koy dundee ndax aw ba ak mbaay faal dundin la aw dundin la boo xam dañ koy dundee te du dundin wu naxat du dundin wu naqari de mm-hmm. la la lañ ca mën a wax mooy jaayante ba ne ca biir dafa am jaayante nag mm-hmm. bu ne ca biir mm-hmm. te jaayante bi may wax mooy jaayante si bakken jaayanteeg sa nafsu ndax boo xoolee ba ci biir yoonu baay faal dafa am lu muy bañ day bañ déet yoonu baay faal amul negatif positif rek la amul non wii rek moo am. Mm-hmm. waaw rek. te waaw boobu nga xamante ni moom moom moo moom moo ne ci yoonu Baay Faal. Mm-hmm. war a nekk ci dundinu Baay Faal war a nekk ci ak Mbaay Faal. Mm-hmm. mooy li gën ndax déedéet bi am na lu mu jur. Iblis wax nañ ne moo jiite woon malayka yu bari wax nañ ne nekk ku nekk ku foor ku fooroon waaye déedéet moo moo moo tax moo tax ñu fali ko. waaw sunu maam bi nga xamante ni tey moo waral ñu ñëpp ñu ñëw daaru duniyaar di fi sonn mm-hmm. te mu ne woon biir àjjana mm-hmm. dafa am luñ ko laalloo ak luñ ko luñ ko tere rek mm-hmm. mu def mu def déedéet déedéet bi moo jur lii <laughs> déedéet bi moo jur lii ñoo ko bokk déggandoo suñu jëriñ Lamp fal uh, moom Cheikh Abdou Karim moom Cheikh Modou Fadal Mbacké moom Cheikhul Khadim Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wa mu mel ne uh, jëriñ foofu tawfeex am na fa bu nee bu nee jëwriñ làmp moom Cheikh Abdou moom Cheikhul Xaddi moom Cheikhul Fadal moom Cheikhul Xaddi sëñ ma Paxa dafa wax naar ba ne ko maa la gën a jege sëriñ bi maa la gën a jege rasulullah alayhi salaatu naar bi ne ko rasulullah mooy sama moom tamit te deretam laa yore mu ne ko noo ko jege naar ba lim maam àgg ci téeméer maam doog ak ci rasulullah alayhi salaatu wasalaam sëñ Madiaw Paxa ne ko te indi sa loxo mu indi loxo mu ne ko dangay wax Madiaw Paxa ne xaadimu rasul ne rasulullah kon foofu tawfeex nga fa tawfeex jooju nag jëwriñ bu ñu la déggee nga indi développé nga tuuti ci makarimal axlaaq mm-hmm. yaa ngay bëgg a indi ni waxta sima bi abdullahi jamii'an wala tafarraqu mm-hmm. yaa ngay bëgg a indi waxta euh, li suñu borom subhaanahu wa taala wax ne innamal mu'minuuna ixwa mm-hmm. waaye joxe ndigal na fa aslihu bayna ko su ma la déggee euh, sama question bi ma lay bëgg a laaj mooy buñ seetlu am na ñoo xamante mën nañ ci xar téeméeri junni bu dee laadum la mën nañ ci xar bu dee un million bu dee baali baali mën nañ ci ab xaj pitbull yii te 4 millions ba 5 millions te mënuñu ko ci seen moroomu doomu aadama mi nga xamante ne ni moom la leen si suñu borom booleet ñu di ko romb ci mbedd mi kookee nag tey jii yéen ñi ngeen bokk ci njabootu Cheikh Abdou Karim takk seen laxasaay ànd ak moom mu dëggal leen ma makarimul axlaq ngeen dugg ci ruq yi ak ruqaat yi di récupérer tout tànk yi nga xamante ne doon topp mboy gi di jàddi wéy responsabilité Cheikhul Khadim la ndax moo ne maa ngi nama dalal islam sëf leen ma jóor leen ma danaa ko jaam Cheikh Abdou Karim ñëw di ko aw ci makaramal axlaaq yi ndax ma wax wa xablanaa makaramal axlaaq wax nga wax nga ko léegi mu ñëw jox la mission bi ngeen ko àggale mais di yi jëwriñ dafa mel ni bëri na léegi nag ak ndongo tarbiya jigéen for jëlee ko jigéen récupéré jëlee ko ci mbedd mi muy traîné moo xam da doon 15 moo xam ilaa axirihi ngeen récupéré ko indi ko ropp ci daara ci tey ngeen dégg lii suba ngeen dégg lee waaye du moy ndax sëñ Modou Moussa mi nga xamante ni moo doon sëñ Tuubaa da nga wax ko léegi mm-hmm. waxoon na ne sama deret bi doon mbuus mënutoo def pepp mm-hmm. yéen nag ngeen def ba mën a concevoir loolu àndandoog liggéey sëriñ bi ci biir coono bu métti bi waaw xam nga loolu dafa fekk sax sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallou mos a wax ne nit ñi de bu seen oto yàqoo ñu sonn ci lool ci defar ko bu seen télévision yàqoo ñu gàdd ko yóbbu ci réparateur nee na bien matériel bu ñu am ñu gàdd ko yóbbu ko ci matériel euh, ci ci ki koy defar mm. sonn ci mm. mu ne lu tax koon bu seen seen doom mm. wala seen rakk wala ku ñu bokk rek su su su su melee ni lu yàqu lu waral du leen jaral boobu coono kon li nga wax ni sëñ du Karim mu sëñ Fallou moo njëkk posé wala question ba defar bii muy defar nga xam ne dafa récupérer nit ñi ndax wax naa la ne la sëñ Abdou Karim la gëj a génn Sénégal moo ko wax. boobee ba léegi mi ngi ci dëkk bi xoolal 84 ak 2017 lan la fi sëñ Abdou Karim nekkee sos daayira fédération Makarim Oxla le 9 octobre 1993 jiital benn jëwriñ ju ñuy wax xam du sekk ci kanam. teg ci am xam-xam bu mel ni sëñ Touba Sène defar benn bureau teg man léeg-léeg sax ma ne gars yi fédération des daayira Makarimu Akhlaq ñun ñoo ko moom. sëñ nag mooy borom Makarimu Akhlaq. te ki moom Makarimu Akhlaq moom rek moo mën a defar fédération Makarimu Akhlaq. bi ñu tàbbee ci biir mu jël benn jë mu jël ay jëwriñu Baay Faal teg ci kanam muy jëwriñ Abdou Ndaw muy jëwriñu jëwriñ yi. yilif ñi ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo yor dongo yi ci daara yi ñuy vulgariser bi appel bi nag à travers le monde tàmbale ko fii ci Sénégal fekk ay jëmm yoo xamante ne dañu nekkoon dans la déchéance di leen récupérer yóbbu leen ci daara yi di leen tàggat nga xam ne ñun si ñun daara yi sax ay lieu de réinsertion et de rééducation la ñu nekk fa ak ay jëmm yoo xamante ni ñii dañ daan jël alalu jàmbur ñii ay addu kalpe lañu woon ñii ay ñii xëy na nekkuñu woon sax di dem di agressé nit ak di di di di kii waaye lu ñu mës a gis mu tegee rek nekk seen porte rek yóbbu nañ ko. seen loxo toogul ñu récupérer leen sëñ bi récupérer leen dugal leen ci daara yi tegal leen fa ay jëwriñ. li waral ñu leen di jox kël yi mooy dañ leen di won rek ne leen xaalis nekkul da ko war a sàcc rek dañ lay jàngal nga dem wuti ko ci ay coono wuti ko ci coono ba pare indi joxe ko te dërëm doo ko ci laal ñu jël loolu dugal la ko ci biir liggéeyu suñ suñ tubaab bi mu nekk benn phase boo xamante ni. li may faral di wax rek naan diggante summi mbubu ak sol mbubu faw yaramu neen am ci yoon te nit ñi ñoo patient wul waaye dañoo laajul ñi nga xamante ni seeni njaboot jaaxaloon na leen lool mhm. ci ay jamono mhm. ba mujjee ci loxol sëñ Abdou Karim Sëñ Fall mhm. ñooñu tey bu ñu leen dajale woon ne leen yéen dañoo bëggoon ngeen dajaloo def mbooloo sant ji sëñ Abdou Karim bu nu génnee ci mbedd mi di nga gis mbooloo mu takku ci ay jigéen yoo xamante ni jaay nañ seeni seeni takkaay mm-hmm. lu ne jox ko sëriñ mm-hmm. ñàkk nañ seeni i alal mm-hmm. tayle nañ seeni i kër lépp ngir benn doom ju ñu bëgg mu baax mu tëw a baax mujje ci loxo sëñ Abdou Karim ñàkk ca dara sëñ Abdou Karim defaral leen ko ba mu baax jox ko soxna muy juri doom delloowaat leen ko léegi nag li tax ma wax ne nit ñi dañoo patient wul mooy léeg-léeg nga gis Baye Fall bu rafet bu la romb ndax léeg-léeg sax nga teetaan ci télévision yi ah gis ñu invité benn Baye Fall bu toog sori njaañ yu rafet sol lu rafet ñu ñu ñi dugg sax ci antenne yi yow Baye Fall dafa yiw dafa civilisé dafa nangam nangam par exemple tey bëriwaan nag koy dajal ci mbedd mi nii Baye Fall bu mel noonu di ko gërëm ak di ko sant. te danga koo xàmmewul rek waxoon naa ko ci benn émission. Hmm. Baye Fall boobu ngay gërëm di ko sant naa ko Baye Fall ni la mel. Hmm. da koo xàmmewul mos ngeen a daje nga xarab ko. ne ko demal wuti liggéey. salte ngeen. boobu jamono mi ngi toll ci phase ñu ko defar ñu ko tàggat te comme noppeegul woon ndax soo déggee ma ne diggante sum mbubb ak sol mbubb foofu yaramu neen am ci yoon diggante bi dong bi nit ki ñëwee ñu di ko defar. te noppeegul diggante bi mën nga fi mën na mën nga mën na fi mën na fi laal li mu defoon mën na fi def li mu daan def. ci diggante bi mu nekkee ci biir daara ji te nekkoon jël jëlkat mën na fi benn bés rek romb yëfu jàmm jël ko boobu ni nga koy defar te noppeeguñ waaye buñ ci noppee ci moom mu siideeti laal yëfu jàmm ndax dafa leçon yi moo matul kon tey sëñ Abdou Karim mos na ko wax ci Sandaga mooy bi nga xamante ni coow lu bëri na lool lool lool ci Baye Fall gi boroom këll yi boroom këll yi borom kër gi këll yi mu dem sàndaga daal di wax ne xale yi ngeen gis ñu yor këll yi tey ñoo yoroon jaas yeeg paaka yi ci ay jamono léegi nag comme coow li dafa bari da ngeen di tànn ci diggante këll yi ak paaka yeeg jaas yi bu leen ci gën a rek <laughs> waaye xam naa ni loolu. gaañu duñu mos delluwaat ci paaka yeeg jaase yi kon këll bi nga xamante ni Baay Faal bu daf la koy taalal ne la saa ndey wala saa baay benn ñaar dërëm bi ji sànni wala ñetti dërëm wala juróom wala sax nga ne ko maa ngi jéggalu mu ñaanal la ndax ñoom boo leen joxee ñu ñaanal la boo leen joxul ñu ñaanal la nga bëggee leen ci benn li ñu doon nit ba pare ndax nit day njëkk fonk nit quel que soit nu mu fekkee nit noo mën a fekkee nit rek nit moom li ko war a njëkk mooy nit ki kii boo ko xoolee ba xam ne yéen nuroo rek. Hmm? fonkal waaw fonkal loolu mooy mooy mooy njëlbeen. ndax yéen a nuroo da koy xool mu yor ñaari bët yaar ñor yaari nopp nga leer ni kii ki ko bind moo la bind yow. te yéen ñaari yéen a yam juddu. sëñ Abdou Karim nee nañ judd bu rëy yooyu yëpp dañ koy wax nee na ñëpp a juddu judd wala xadd karam naa ba ni Adama moom ba mu jibee rek. ñëpp a yem la ñëpp a yem judd. kon kii nga dajeel gënoo ko. yéen a juddu nit la ne yow li nga war a njëkk a def mooy nga jox ko considération ba pare. ba ak état boo ko mën a fekkee nag. doo ko lijjanti nag li ci des. jamono yi yaa ngi dégg ñu naan xale yi nañ bàyyi dugg ci gaal yi. tey bu la waa Libye yónnee tey benn benn benn foto bu ndaw wan la ni ñuy def sénégalais yi ci àll bi mu naqadi la ñuy def lutte di xeex ak ñi nga xamante ne ñooy dem ay ay tukki naan Barça wala Barsaq ñuy jàpp yi di leen traité de n'importe quoi ci yeneen réew mu di la naqadi su la naqadee kañ boo dajeeg benn ndongo bu yor këll sax di yarma léegi yow foofu dañ lay laaj sax ndax moom mu yor këll bi di yalwaan ci biir réew mi ak mu dem barsax dem barsax di jéem a dem barsax dugg ci gaale bu gën a xam naa dina am ku ne yeneen liggéey ñu ngi fi mais yeneen liggéey bu fi amoon kon nit ñu chômeur yi duñ jooy nit ñi duñu réclamer bés bés bu yàlla sàkk ay emploi liggéey sax mu defaree mu defar te nag doon gor toog yoroo dara bu fekkonte ni nit ki mën na bañ a yor dara mm-hmm. ba pare toog fi mu toog mm-hmm. te kenn du ko wax dara mm-hmm. kon loolu dina mënu waaye fii xam nga ni ki toog sax lañu gën a mën a xas lii moo jur ñenn ñi di sàcc lii moo jur ñenn ñi di agressé yi ñi mënul loolu ci dëkk bi ñooy ñoom ñooy ñiy jéem a tukki di dem ba mu ba da ci loru kon ñooñu bàyyi leen ak sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallou ak ku mel ne sëñ Abdou Karim mu defar moo gën am na bés sëñ bi wax ne coow li bëri na waaye ku mën defar daal defar ku mënul nanu bàyyi ñu ñu defar ñun ñu mën defar ñu defar te comme moom opté na bañ a dem fenn toog pour defar te bi mu tàmbaleeg nega nii li mu faj ci ay nit li mu defar ci ay nit ndax sëñ bi du ay bandi rek la defar defar na ay jëmm yoo xamante ne du noonu ay bandi salte nii bandi cerveau lañu seen xel li mu doon ràbb lu bon rek lay ràbb sëñ bi moo ko raxas ba mu set def ci léegi ñuy ràbb loolu rafet di ko liggéey ci liggéey suñ tubaab bi mm-hmm. sëñ defar na jëmm yoo xam ay nooseur lañu woon mm-hmm. yoo xamante ne dañ daan xëy di gont di am xaalis mm-hmm. waaye seen soxna du ko gis. Mm-hmm. seen ndey du ko mos seen rakk duñ ko faale. ñooñu sëñ bi tey jubbanti ne leen ba tey lu ñu am daw nañ bokk ji ko seen njaboot. Mm-hmm. mooy riir mu rëy mii nga gis ci biir këram koo gis rek mu naan sëñ Abdou Karim sëñ Abdou Karim rek boo ko boo duggoon ak moom tey ji jox ko micro bi mu wax la li ko sëriñ bi defal. Mm-hmm. nga gis ne kii moom mooy dëgg dëgg dëgg kiy dimbali nit ñi. tey nit jekk na nekk ci benn société di fa liggéey a société bi di la gërëm di ko sant kooku noonu hmm. employé bi hmm. mais moom sëñ Abdou Karim lay sant ndax li tax mu mën loolu sëñ Abdou Karim mu sëñ Fall loo koy defal hmm. kon ak Mbaye Fall sànq wax naa la ne la amul déet waaw rek la am buñ leen indee si daara yi di leen tarbiya difficulté yi ñu si am ñun lenn rek la mooy ñi ci biti niñ leen di jàppee waaye loolu nekk na loo xamante ni découragé loowuñu ndax yow boo xamul ñun li ñuy wut ñun ñi koy wut ñu xam li ñuy wut mm-hmm. ñun xam nañ li ñuy wut donc yooyu ñuy tarbiye ñoom xam nañ bu baax a baax a baax foofu ñu fa nekk liñ fay wut ak liñ fay ñu fay jëlee ne dongo yi dañuy wut ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla nag yombul yomb goo xamante ni danga nga naan salaamaaleykum maaleykum salaam rek daal di koy am ngërëmal yàlla dafa am lu muy laaj loolu mu laaj nag faw ñu teg la ko ñun jëwriñ nii bu ñu ci dee am coono mooy da ngay dajeeg dongo dongo yu dëgër bopp mm-hmm. yoo xam dañuy wut ngërëmal yàlla man sax waruma ko tuddee dëgër bopp dama war a wax ne seytaane mi nga xamante ni xam na lan mooy ngërëmal yàlla te xam ne ñii bu ñu amee ngërëmu yàlla moom mu yàqule mu di leen xañ ngërëmal yàlla jamono bi mu tolloo ci di leen koy xañ na ñuy comporté woo ak na ñuy bindoo ci ay xeeti dëgër bopp loolu mooy ci doon ab coono rek waaye coono bu neex lay doon nag si ñun ndax dañuy xam ne danoo comprendre wul te comme ñun aussi dañuy dañuy dañuy tarbiya foog ñu am patience. Mm-hmm. foog ñu am am am muñ. bu ñu bu ñu bu leen xëccee di leen yóbbu ba ñu ak fii te loolu defe naa réussir nañ ci ci ñu bëree bëree bëree. suñu diggante ñu doon ñoom. waaw ba tey jii ñu nekk ay jëmm yoo xamante ni macha allah. Mm-hmm. ñoom seen bopp sax léegi dañuy defaraate mm-hmm. da leen di jox ay nit ñu leen tarbiya di leen defar. kon dara lu yomb amul fenn. te ñun li ñuy sonn sonn en tant que ay jaww ji sëñ bee ñu gën a sonn. mais ñu gën a sonn moom mi nga xamante ni moom li mu ko booleel dafa métti boole ko jaamu yàlla bu métti métti métti te Baye Fall gi dingat gi nga xamante ni aussi moom lañ ciy dingat loolu moom yàgg na ci yoon bi te it nag ñun dañ ko def escalier bi nga xamante ni moo yi jëmee ci ci li ñu bëgg sëñ bi nag neewoon nañu àddina sëpp bu nu woon di leen gën a ak di leen sant te du man mii maa ko wax du safe àddina yëpp bu ñu maase woon it di leen ŋàññi te du man mii man maa ko wax du safe daal ne li tax loolu mooy yéen man la leen sëñ Fallou booleel man la leen sëriñ Touba booleel <laughs> te comme man li ma xam ci yéen xam naa ko ci yéen rek mu ne loolu rek doy na nag loolu mooy source de motivation bi nga xamante ni moo nekk ci ñun moo ñuy motiver saa su ne nga mm-hmm. xam ne ñun dañuy dem ba nga xamante ni moom moom sëñ Abdou Karim ak la ñuy xool moom li mu bëgg rek. Mm-hmm. moom rek la ñuy dab moom su bëggee rek non keneen ko bëggul du garaaw. Mm-hmm. waaw moom nay bëgg rek. Ah, kon moom bu xale bee moom bu gërëmee loolu la bàyyi euh, làmp wax kon mu mel ni am kilifa mooy li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéeruwul yow boobu ma wax loolu nga bëgg a jàngal waaye euh, jëriñ euh, nun xam nañ sang boobu nga xam ne mooy Cheikh Abdou Karim dégg na waaye. waykat bu baax da ko bind daal di wax ne ñaari bayit bëri na sax waaye na ma jël ñaari rek dafa wax ne haza karimu ibnul karimu fa ismuhu abdul karim kii day ku tedd la doomi ku tedd waaye aw turam mooy jàmbu tedd bi waaye léegi jàmbu tedd boobu defar dugg ci roq bi ak roqaat yi àndandoo gi àndandoo ay jëwriñam te dafa waxoon ne samay jëwriñ dama bëgg ngeen bàyyi ci xel ndax man dama mën a tànn lool fa la ma fekk fàtte fàtte ma ko yàggul dama mën a tànn tànnkat boobu nag tànn sélectionné ci biir jëwriñ yi sélectionné génne teg te ab tànn yàgg na ci yoonu murit ndax sëriñ bi tànnoon na ci yoonu njëkk wa mm. mooy ñi ñu tuddee ay cheikh mm. waaw Cheikh Abdou Karim tànn tànnaat mm. muy seen jëmm yi ak ñi nga tudd fii léegi ni léegi yéen ngi ànd dugg ci biir mbooloo mi tànnaat mais yow suñu borom defal la ci tawfeex jooj xel ma nga ca amee yàlla na yokk yàlla na barkeel itam muy booloo mooy doole fas nga ne képp koo xamante ne nii islam nga bokk ni ko Cheikh Abdou Karim wootee ngeen joxante loxo ak loxo li ñuy wax la main dans la main ngeen ànd ak jëm ci yoon wi nga xamante ne mooy ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim waaw ndax léegi bu ngeen joxantee loxo ba noppi day dina am bis nag ngeen namm sang bi lool takk seen laxasaay nag defar ba jekk sañse bu baax dugg ci kaar nekk dañ ko siyaare ji sëñ Moussa loolu moom am na ndax daanaka sax boo xoolee ñu ngi koy waajal ci weer wi ñaar fan ak juróom la vingt cinq mars te defe naa mooy juróom-ñaareelu édition bi ñuy def di ko siyaare sëñ bi mu mel ni siyaar boobu benn yoon par at lañ koy def li koy waral mooy ku mel ni man nga xam ne booloo mooy doole boobu man maa ko jiitee muy BMD ndax booloo mooy doole nekkul benn tur boo xamante ni dañ ko génne nii rek par hasard. Mm-hmm. te du sëñ Abdul Karim mu sëñ Fallou moo ko génnee wax ko ci turam. Mm-hmm. ci làmbinam ne nañ ko tuddee noonu. Mm-hmm. ni ma la wax sànq sëñ Abdul Karim bi mu taxawalee fédération des daayira Makaay mu wax laa. tànn benn jëwriñ jiital ko ca kanam muy Mouhamadou sekk jël ko topp ci ginnaawam muy sëñ Touba Sène. jël ko ñuy wax Ngañ Gueye def ko secrétaire général. jël ku ñuy wax Abdoulahat Ngom def ko secrétaire général à l'organisation. teg ci ku ñuy wax sëñ sàmba Sall. jël koo xamante ni mooy chargé des relations entre les daïra. muy Abdoulaye Gueye jox ko. trésorier bi nag changé na fi ci diggante ci boobu jamono. ku ñuy wax Xolle Cuun moo doon trésorier. waaye jamono yi ku ñuy wax Pape Ndiaye moo ko yor. ginnaaw bi mu ko defee nag ba taxawal kuréel Baye Fall it. jël jëwlin Abdou Ndaw teg ko ci kan ñun ñi nag la Abdou Ndaw bootoon muy ku mel ni man mm-hmm. jëriñ Pambay dem si yàlla yàlla na ko yàlla yërëm yokk ay leram tey bi mu fi randoo ku ñuy wax Babacar Niang wutu ko mm-hmm. ak jëriñ Omar Diagne ak jëriñ Abdou Aziz mm-hmm. jëriñ Omar Diagne jël li mu yoroon daal koy dugal ci biir li Pape Mbaye yoroon ñu ànd liggéey comme que lépp benn la jëriñ Abdou jël li mu yoroon indi ko dugal ko ci man ñuy ànd di liggéey ñu dem ba mu yàgg sëriñ bi sos jëf jël jëwrinale ko mu murit mbay demaat ba mu yàgg sos tarbiyati wal adab jaarale ko ci benn soxnaam soxna Fat Bintu na koy siyaare bu baax soxna maam Ami Mbàkke ak soxna Lika Mbeng nga xam ne ñooy sunu yaay yi nekk ci kër sëñ Abdou Karim Sy léegi nag bi ko sëñ bi taxawalee noonu am na yeneen kuréel yu fi nekk ci biir yu mel ni kuréel Ibrahima Mbeng am na fi Xaadim Ndaw Asan Njaay ak yeneen daayira yoo xam ay benn benn daayira lañ mm-hmm. waaye bi nga xamante ni nag man damay wër di génn di samp ay daara ci àll bi mm-hmm. daara bu ma samp samp daayira ci wetam mm-hmm. bu ko defee daara ja moom mooy doon siège yu daayira ba jëwrinu Baay Faal bi fa nekk nekkandoo fa ak ay Baay Faal takk der di leen tarbiya Mm-hmm. moom nag mooy yilifaale jëwrinu daayira bu góor bi ak bu jigéen bi bu ko defee nag jëwrinu daayira bi moom yilif daayira bi mm-hmm. bu góor bi yilifaale bu jigéen bi ñu ànd liggéey mm-hmm. ma koy def nag ba nga xamante ne am naa daara Tàmba am naa daara Fuuta Fuuta sax daanaka boo xoolee yor naa fa tamit juróomi daayira fu ma dem daara ak daayira ay Guinguinéo Fatick. Kébémer Kébémer Ngaay Thiès Mboro. Mm-hmm. ay Sagata. Mm-hmm. ay Kidira. Mm-hmm. fu ne maa ngi fay amee daara ak daayira. Baye Fall yi jiitu sànq moo tax sànq ma wala simi wax ne la. liggéey bu ci nekk rek Baye Fall takk der yi ñoo koy piloté nekk ci kanam. jiite ci kanam ngir mbooloo mi ñu àndal. ñu jox leen ay pas-pasu Baye jox leen tamit ay tolluwaayu Baay Faal mm. yóbbu leen ci dundinu Baay Faal mm. ndax boo xoolee dundinu Baay Faal mooy dundin bi nga xamante ne ci yoonu murit mm. dëgg dëgg dëgg dëgg moom mooy mooy moo gën ndax li ko waral moom muy gën mooy wax naa la sànq ne la ak Baay Faal dañ ci supprimer li nga xamante ni mooy déet déet du ci am waaw rek mooy jëfal nga jëf bàyyil nga bàyyi jëfee ndigal bàyyi tere. Mm-hmm. te yoonu murit boo xoolee ba ci biir loolu mooy force mm-hmm. loolu mooy doole ji. Mm-hmm. kon suñu bëggee liggéey bi yomb ñi nga xamante ni sax ci daayira yi nekk dañ leen di yóbbu ci dimension ñuy jëfe ay ndigal di bàyyi tere. doon ay Baay Faal. léegi nag ma sos ci ay kuréel yu bëree bëree bëree bëri te comme man wax dëgg yàlla duma seen sëriñ. seen jëwriñ laa. sëriñ baa ngi nii. dana laaj bés nag ma dajale leen ñun ñëpp ñu ànd ginnaaw bi ñu demee sàkku ndigal bi ci moom ba mu nangul ñu ko jàppal ñu bés ndax moom moo ñuy mooy nangu ndigal bi jàppal ñu bés ñu dem waaj ko bu bés ba jotee ñu àndandoo ñun ñëpp ñëw bu nu ñëwee man mii jëwriñ ji ñoo gërëm ko sant ko ci lépp lu mu ñu defal ci lu baax ak fi mu jaara ñun bu ko defee mu ne ko nag say taalibe yaa ngi nii sa dongo yaa ngi nii sa soppe yaa ngi nii sa wóllëre yaa ngi nii mm. daal ne wóllëre yeeg soppe yeeg taalibe yi mm. suñu yaakaar tey ëllëg ngi ñu def face à sëñ bi ñaanal ñu mm. dolliwaat ñu ñu dem góorgóorluwaat ñëwaat kon lii mooy jur loolu booloo mooy doole bi nag wax naa la ne du benn tur bu ñëw par hasard nii sànq wax nga ko sëñ Abdou Karim daara ji mu njëkk sof sos bi mu ko sosee dafa am bés mu dugg ci biir kees gi bind fa aaye jàppante leen ci bu yàlla ji war a bu leen teqali ko am benn bésit mu léebal ñu lépp boo xamante ni benn kilifa la woon ak juróom-ñaari doom kenn ku nekk mun a la faral bant indil ma ko ku nekk for bant mu dajale bant yi ne leen rang leen ñu rang mu ne dama bëgg ngeen damm ko daal téye juróom-ñaari bant yëpp waaye ku jéem ba sonn rek doo doo ko dam mm-hmm. ba ñëpp mat mm-hmm. mu teqale bant yi nag benn par benn mm-hmm. bant bu mu ci téye rek nekkee na damal kooku damal mu xamal leen ne leen nag bis bu ngeen boolee seen bopp kenn du leen mën a damm waaye bu ngeen teqale ko rek ñu damm leen par benn benn ma daal di jël aaya boobu ma bindoon ak léeg bi boole ko bi ma ko xoolaatee gisuma ci lenn lu dul booloo mooy doole waxuma mbooloo nag ndax mbooloo MB lañ koy bindi mm-hmm. mais kii boolaa laa wax directement B mm-hmm. li tax ma wax ne booloo te bañ a wax mbooloo mm-hmm. ndax mbooloo mën na bëri te du duñu bennoo mais ay nit suñu booloo yi dañuy bennoo dund union dans l'unité doon benn lu waay yéene sa bopp yéene ko sa moroom lu waay di nëbbal sa bopp nëbbal ko sa morom ci loolu nag moo waral ma indi boobu tur ànd ceeg gars yi nag di ko jéem a doxal waaye xam naa ne du yomb waaye yàkkamtuma maa ngi dox ndànk-ndànk di ko jàngale ci seen biir bëgg ñëpp boole mel ko suñ ko melee mooy tax ñu jot li ñuy wut ci sëriñ bi ndax sëriñ bi xaalis daaneelu ko kuy xëy suba toog di maye di dippi di faj aaju jaam yi kooku xaalis jaaxalu ko doom yi siñ Fallu la bu dee kër gu rafet kenn gënu ko rafet la bu dee oto bu rafet kenn gënu ko rafet la waxte kon kooku lan moo koy yëngal makaarimul axlaax rek a koy yëngal te makaarimul axlaax man jàpp na ne la ci njëkk mooy borom xol boo xamante ni xolom daa day da dafa booloo ak ñëpp moo tax ma indi yoon boobu jàpp na xëy na buñ ci doxee danañ gën a gaaw teel a yegg fi sëriñ bi bëgguñu àgg fi ba jël li nga xamante ni moom lañ fa bëgg jël muy ngërëmal suñu borom bi barkàlla kon loolu moo indi booloo mooy doole te itam buñu demee ci alquranul karim ba ada a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim suñu borom subhaanahu wa taala ma ngi wax ne wa'tasimu bi abdillahi jamii'an wa laa tafarraqu xam naa kon mbokk yi waaxum giléem moo xajul ci waaj sunu jëriñ sunu kilifa lañ doon dalal muy sa jëriñ Lamp Fall moom Cheikh Abdoul Karim Cheikh allah rabbi daañu ñëw ci yeneen yoon ñu leeral makarimul axlaaq yi doon dugg rek tey ci tarbiyatu lan mooy ndongo tarbiya dañ du ko seen muy muy dox ci dëkk bi ñu ko seen muy yor këllam ñu koy seen muy màjjaat yi ñu koy seen muy dox di wër kan mooy ndongo tarbiya kon xam naa jëriñ jox la nga tàggoo ci euh, cinq secondes. waaw euh, waaxum gi leen waxal ji waan waaye kon tabarkàlla. kon ñoo ngi gërëmaat ñëpp di sant ñëpp. Mm-hmm. di la jiital ci biir loolu. di ñaanal Touba TV euh, kii Bichri TV. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla boole ci télé yi gën màgg ci télé yi ci àddina. ñëpp di ko déglu. di soññaat sa mbopp di woo ñëpp nag. ci siyaar boobu. ñaar fan ak juróom ka sëñ Abdou Karim di ci woo mbooloom jullit di ci woo mbooloom murit di wax nag képp ku ci teew rek yàlla na sa ajo faju hmm. ku am yéene it te mën a ñëw it yàlla na la ñaan bi fekk foofu. ak sëñ Fall. ah tabarkalla jërëjëf Barke Cheikh Amadou kon mbokk yi ñoo ko bokk déggandoo ah, ay dongo yu namm seenub sang nang namm seenub sëriñ fas yenn siyaare ji waaye ay dongo tarbiya ñu sëriñ bi defar ñu koy delloo ñu jukkal ndax sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo waxoon ne inna lazina ila inna lazina ila sa saara xat xasadoo siyaaratin faaroxu daara naxaw saara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jëf